même des arrestations déjà dans le rang de l'opposition avec ce Bah Diakhaté bi ñuy wax il a été même condamné aujourd'hui à trois mois de prison moom li moom bëgg naa ci am sa sa point de vue. non pour man c'est pour man c'est injuste. Mhm. sérieusement pour man c'est injuste je suis pas de l'APR ànduma ak Bah Diakhaté lu mu wax je suis mhm. pas d'accord. mais il est allé un peu trop loin aussi d'après les dires de certains c'est même l'avis du tribunal qui l'a condamné. waaw d'accord mais je pense que ñoom bu fi nekkee ils avaient dit pire. Mhm. ñoom bu fi nekkee Sonko avait dit pire tey ñoom lu ñu doon wax xam nga loolu tax man que commencé benn politique boo xam ne. ëllëg mooy retour retour du bâton la mmh. retour du bâton la parce que ñun ñoo commencé politique boobu tey ñu def leen ko ñu ñuy mer di gis seen bopp mmh. nii la du tribunal est-ce que vous y sentez que ne euh, am na pouvoir exécutif bu bu buur bu xaw a dugg ci mbir mi ce qu'on reprochait au régime c'est-à-dire que c'est dommage parce que tey sur offense au premier ministre ça existe pas te amul benn loi bu tudd offense au premier ministre. bon c'est pas pour ça ne le président c'est un peu comme le président moom moom d'accord mais le président n'a pas délégué ses pouvoirs parce que en ce moment les fonctions du premier ministre les fonctions du premier ministre. clairement définies les fonctions, fonctions du président sont les fonctions du président. Mm-hmm. te amul benn décret wala benn loi bu wax ne bay président bi dafa dafa délégué yenn fonction am à Sonko donc on peut pas parler offense au premier ministre wala article je pense que en ce moment li ñu doon ñaawlu si euh, si justice bi di ñaan ne alternance su amee dootu amati ñoo ngi koy gis ba léegi d'ailleurs sax l'opinion euh, la communauté internationale ñoo ngi commencé di inquiété wu mhm. parce que il paraît que le front monétaire quand ils vont venir ils demandent des explications par rapport à ça mhm. mooy journalistes yi ñu yóbbu euh, dik les gens les activistes yu ñuy tëj